dama bëgg ñu seetaane benn vidéo dellu si waat yéenay ten ba ten du wax ku am lu ko nag yow boole woo ma la ci nit yi duma la nuyu duma wax ak yow bokko ci nit ñi toogal te nee nga da ngay dem mag yàlla na nga gis kaaba ga ndax bu yëggee na yegg nga yow dana wàcc da kaaba ga day daw yéen yéenay kan ba kenn du wax yéenay kan ba kenn du wax laa bëgg a laajte yërëm naa la de sa njaboot bii ndegem lii mooy sa njaboot yërëm naa la sa yat moom diis na xam na ku ñu fal toujours day daan la yàlla na yat bi oyof mais yow sa bés diis na gann te yërëm naa la ñoo seetaanandoo vidéo bi nga xamante ni kii ab député la ñu koy woowe honorable dépité di ko fay xaalisu askanu Sénégal ñun góorgóorlu yi ñun moodu moodu yi yow ambulant bi yow mécanicien bi yow menuisier bi yow soudeur bi yow commerçant bi taxe yi ñuy jël ci yow patente yi ñuy jël ci yow

waaye yëf yi ñàkk fayda lii ce député su dee nit ñi dañ doon tiitaroo député de du lii la ñuy tiitaroo genre ñii du ñii la ñuy tiitaroo du ñii ñooy royukaay du ñii ñooy référence du ñii ñoo mën a développer Sénégal vous parlez de développement le développement d'abord c'est dans l'esprit le développement c'est dans l'esprit sa xel mooy développer pas pare nga mën a soog développer réew ba développer suuf mais sa xel su développer wul mënoo développer leneen de grâce nous sommes députés, nous député honorables. est-ce que nous méritons de mettre un drapeau vert jaune rouge du Sénégal est-ce que nous méritons mérité mettre un salaire au Sénégal suñuy nous ñun nous sommes ñun gens yi li ñu nous rongooñu baadoolo mooy nous cere buur loolu la nous dund ñun nous fu muy nous nous ngeen leen des avions, ay avion dans les meilleures écoles occidentaux su ngeen jógee ngeen di xeex occidentaux yi ci kanamu sénégalais yi di mettre en mal votre peuple avec les autres là où vos enfants réussissent yéen ñëpp seen doom yi ay graduation la ñuy signé ñii ñi États-Unis Miami Los Angeles ñii ñi Harlem ñi New Haven ñi Canada et vous laissez les Sénégalais ici et demain vous insultez ces occidentaux-là devant les jeunes innocents et pauvres de grâce vous ne méritez pas votre place à l'Assemblée nationale